mu daal di uti wàllu euh, daal di dem ci mbokk yi tam ci mbokk yi am na kenn ki nga xam ne nag yëkkati na alalu jàmbur daal di ko jox pour mu daal di faj ci li nga xam ne moom mooy euh, doom ji en waa université Bambey ñu daal di réagir ndax xale bi fa la doon jànge wala fa la nekk ba tey euh, dinañ am lu leer ak démarche yi nga xam ne nag moom la waajur bi def pour ñu mën a daal di jox doomam paj bi nga xam ne nag moo war dem ci bépp citoyen sénégalais surtout bo nekkee euh, étudiant mu am li nga xamné nak dañ koy wax ci ay assurance wala ci euh, li euh, diwaan bi nga bi nga xamné ne nag nga nek di jang taxaway bi nga xamné nak mom la nga war a taxawee sëñ bi ñu lay sante di la gërëm bu baax a baax tur bi ak yi bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah man maa ngi tudd Mamadou Diop dëkk Parcelles Assainies unité 24. d'accord Mamadou Diop sa dom ci nu mu tudd. sama doom bi ngi tudd Papa Ibnu job université Bambey day jàngee. Ya. d'accord lu waral say tànk yi Mamadou Diop. samay tànk yi li koy waral lu dul leen lu dul sama doom eh, dafa am blessure dafa doon nekk université Bambey dafa am benn blessure bi amee blessure foofu noonu mu dem si sen infirmerie bi docteur bi xool ko ne ko da ngay dem Thiès bi mu demee Thiès dem hôpital régional Thiès. médecin bi xol ko nekk ko li c'est urgent da ngay dem Dakar quoi Abbas ndaw dale ko jox ko it mu dem Abbas ndaw yu demé Abbas ndaw avant loolu lepp sax dafa doon il faut prise en charge université bi ne ko demal nga faju avec tes propres moyens boo ñëwee indi documents yi ñu remboursé la. donc balaa ñuy sori li ngay wax ni ban at la amoon ak lan moo tax euh, premiers soins yi. université bu Bambey defuñu ko wala jot nañ ko ko def premier soin balaa ñu koy wax ni mu jël dem jël li nga xam ne en charge euh, li nga xam ne moom moo nekk facture am wala soin am waaw parce que xam nga da su ma juumul da docteur bu nekk ak domaine bi nga mënee moom dafa dafa gaañoo si bët bi mu demee université Bambey bi ko docteur bi xoolee xam naa ci la nekkoon ne xam naa peut-être lii mënu si dara mu dem hôpital régional Bambey mu yóbbu mu yebal ko si ophtalmologue bi léegi bi moom bi mu demee si ophtalmologue bi nag si la ko ji xamal ne ko da war a dem Dakar urgemment daal di bindal kayit pour mu ñëw Abass Ndao. d'accord ban at la. 2022 novembre 2022 la woon. Mm-hmm. Mm-hmm. moom période boobu mu ngi def ñaata année ci euh, li nga xam ne moom période boobu mu ngi doon def euh, mu ngi woon si année année première année master 2 master 1. masse euh, 1 première euh, année masse 1 première masse 1 d'accord ñu bàyyi nga daal di li nga xam ne mooy explication yi ginnaaw bi mu jógee fi nga xam ne nag euh, moom mooy mbay maanaam ci seen hôpital bi lan moo nekkoon tànk yi nga xam ne teg na ko pour mën am faj voilà parce que mu avant muy jógee foofu noonu dafa leen laajoon prise en charge ñu ne ko da ngay dem nga faju avec ses propres boo ñëwee indi kayit yi ñu faj la ce qu'il a fait mu ñëw mu ñëw hôpital Abass ndaw ñu bindal ko rendez mu ñu bindal ko euh, ticket mu jënd ticket man maa jënd ticket bi à 5000 francs léegi bi ñu gisee bi ñu gisee docteur bi mu xool ko ne ko effectivement lii décollement rétine la mais dinañ la jëlal rendez-vous. Hmm. rendez-vous boobu sax ba léegi sax docteur bi sax woowu léegi yëpp novembre 2022 la woon léegi ñu toog xaar novembre décembre janvier ba février do docteur bi woowu ko si lañ ne ko mu dem co laser mu ngi nekk boor ambassade France. C'est une clinique. Le quoi. Les bien docteur, il ont dit que c'était un décollement rétine. Il faut nécessiter une opération. Il faut faire un devis. Le devis d'opération est 1 500 000 francs. Mais après, je vais négocier 1 million 200 000. Maintenant, nous avons le 26 avril 2023. Nous avons fait l'opération. 1 200 000 francs avant loolu sax jënd na francs et ordonnance Les bi opération euh, le 11 mai 2023 man mi papam man dem ba université déposé dossier les euh, mai juin juillet août septembre octobre novembre réaction une réaction. dañoo dit déposé une semaine maximum deux semaines ñeen jox seen xaalis seen remboursement léegi bi ñu toogee no euh, mai ba novembre gisuñu dara ci la man ak sama grand frère bi nga xam ne moom moo génne xaalisam ak sama doom bi étudiant bi ñu dem Crous Bambey biñ fa demee ñu gis secretaire bi ñu wax ko suñu tànk la la woon mu dugg génne dossier bi teg si kaw table ji dañu effectivement dossier baa ngi fii ñu toog xaar ñu toog xaar benn diir euh, CSA bi ñëwut CRT bi nañu léegi da ngeen di dem xaar da ngeen di euh, dina leen jël rendez-vous soit mardi soit jeudi léegi ñun ñu bisi Dakar say euh, secrétaire bi wooñu nañu ñëw leen si jeudi bi ñu demaat jeudi bi toog ñun ak CSA bi waa ji génn dossier bi nañ effectivement dossier bi mu ngi yegg yegg yegg si na si moom mais dafa manqué euh, certificat médical d' accord balaa ñuy sori yaakaar naa euh, woon nañu mën a leeral CSA bi xëy na chef de service d'accueil. accueil mhm. donc euh, est ce que ça donne ji. Mhm. topp na li nga xam nak, nag moom mooy euh, charte yi ko joxoon wala instruction yi ko joxoon maanaam bu jugee fi nga xamné mom moy mënu ñu wax hôpital parce que université yi xam nañu ni léeg-léeg seen poste de santé bi du am non doole bi mu fa jógee dem fi nga xamné mom moy hôpitalu Bambey hôpital Bambay kayit buñ ko jox est-ce que indi nako ko yebal ko ci niveau euh, li nga xam mom moy infirmerie bi infirmerie bi ci lay jóge ñëw directement fi nga xam mom moy euh, Dakar est-ce que jot na topp maanaam bu démé fii nii ñu daal di ko parce que déjà fii la fi nga xam ne fa la commencer moy infirmerie bu hôpitalu Bambay manam université bi. Hmm. université bi daal di ko yebal fi nga xam ne hôpital est-ce que buñ ñu ci hôpital bi nak ñëwaat na euh, ci fi nga xam nak mom moy infirmerie yebal leen kayit bi. balaa ñu leen di wax ngeen jël ko en charge. Euh, effectivement man maa man maa man man man maa déposé kayit yi man bi mu mm-hmm. def opération ba pare. man maa déposé ji kayit yi Bambey man man sama bopp man déposé kayit yëpp man maa dem ba biir investisseur ma déposé papier yëpp. te balaa ngeen di def li nga xam ne nag moom mooy opération bi amoon ngeen garantie ñu ne leen boo leen jëlee seen moyen bopp parce que lii nii lu urgent la. après université bi dina ko rembourser. waaw kañ wax nga wax nga wax nga lu am solo parce que avant ñu dugg fofu yépp sama grand frère dafa woon même sama ma woon na médecin bi laaj ko ne ko en général lii kañ lañ ñuy rembourser ci lañ la ko waxee ne ko maximum une semaine maximum deux semaines ci la sama grand frère bi soog engagé wu dem uti ji ay moyens ne mën a booy bi jàpp nañ ko jàppal date pour ñu opérer ko le 26 avril. loolu moo tax moom mu génn xaalisam dugal. d'accord ginnaaw bu kooku daal di dugalee xaalis parce que yaa ngi doon wax ni moom tam xëy na dafa demoon fëgg ci ay buntu jàmbur. Mm-hmm. pour daal di am koppoor boobu noonu dajale ko pour ngeen man cee faj seen doom. Mm-hmm. fan ngeen mujjee ak waa université Bambey. université Bambey boobu ba léegi waxuñ ñu wow na waxuñ ñu tooy na lenn la xam naa ko parce que man tamit tooguma dem naa si ay étudiants. yoo xam ne ay représentant université bi lañ ñoo xam président amical ñoo xam leneen la fexe naa ba am seen i contact ñoom tamit doxal nañu si ay jéego xamal nañ ma ne ñii de niru bu ñuy fay parce que kenn ki dem na ba ne ma gis na CSA bi mais dafa ne ko gis naa dossier bi xaalis am na fi mais par exemple du ñu jël un million deux cent mille francs jox ko benn étudiant te war ko jox te war ko mën a séddale yeneen étudiants yu bëri quoi léegi booy bi day toog xaar. loolu représentant étudiant yi moo la ko wax. voilà am na benn représentant étudiant boo xam ne ma nga ak numéro ma nga ak contact am ak turam ak yëpp moom moo doxul doxal jéego yooyu parce que moom nee na moom yàgg na fa xam na comment procéder quoi. Euh, lan moo tere sa doom ji ginnaaw bu mu defee opération bi demul rencontrer directement ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci direction Côte bu Bambey. si moom mu ngi doon dem mu ngi doon dem mu ngi doon dem dëgg yàlla mu ngi doon dem. ñu doon dem parce que dañoo comme comme li ñu waxoon dañuy toog di xaar ba 6 amuñ ci lañ ànd ñu ñëpp dem te avant boobu sax moom ñu doon doon dem du am satisfaction. d' yaa ngi doon wax lu jëm ci li nga xam ne moom mooy rencontre entre représentants étudiants yi ak waa COUD lan moo leen lan moo tax sa doom teewul ci boobu ndaje li nga xam ne nag waa ji ko doon teewal may nañ ko accès. waa kañ parce que. bi mu mujjee bi mu mujjee woo représenté étudiants yi dafa ne ma yàggul dara mu ne ma mardi projet am naa rencontre ak directeur bi comme que moom comme que moom gisoon na CSA ba pare sottiwul mu ne moom am na rencontre ak directeur bi léegi na sama doom bi ñëw ñoom ñaar ñu àndaale ci la sama doom bi ne ko euh, demal nga ànd ak diw dafay gis directeur bi ba sàngam mardi ngeen dem booy bi ne ma waaw léegi le jour ji ñoom ñaar ñu ànd dem parce que dama ko doon woo ay côté deux heures yooyu di xool si ndax dem nañ ba pare ba mu ko woo ma dafa nii toog mais représentant étudiant bi mu ngi dugg si mu ngi si biir ne ko ma bàyyi ay guddi ma woo ko mu ma moom duggul quoi après si laa ba jot euh, représentant étudiant bi mu ne ma moom dugg na mais gars yi nanguwuñu woon booy bi dugg ki nga xam ne moom mooy ndeyu mbili gi ñu moom carrément li ne ma man nanguwuñ ñu dugg ma ne ko man damay dem gis les gis les médias mu ne ma defal loolu parce que ñi ndiru ñi ndiru ñu lay fay sa xaalis. lan lan moo tax ñu ñu bañ ki nga xam ne nag ndey mi ngi comme ni ko waxee te moom moo nekk seen étudiant bi am li nga xam ne mooy problème santé ginnaaw bu ñu ko waxee mu def démarche yi après ñu remboursé ko mu ñëw indi papier yëpp ñu bañ kaa recevoir. bon loolu moom dëgg yàlla moom ñoom ñoom ñoom ñoo xam ne pourquoi nanguñ booy booy booy booy bi dugg loolu moom dëgg yàlla waa université ñoom ñoo xam parce que booy bi dem na ba jour boobu. ànd ak président amical bi. d' accord ginnaaw message li nga xam ne moom mooy ndimbal ndax sa mag ji maanaam ki nga xam ne nag euh, mboq la ci yow si mu jëlee koppoor gi xamu leen ko te euh, daanaka dafa dem fëgg buntu jàmbur yi pour mën a di opérer ki nga xam ne moom mooy sa doom ji fu mu toll ni borom euh, koppoor gi ñu ngi koy laaj seen xaalis ak li nga xam ne nag moom mooy remboursement bi moo leen taxal accéléré li nga xam ne nag moom mooy. sorti bi ngay def nii pour ñu mun leen rembourser lan ngay sànni comme kaddu par rapport ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo lay seetaan te di la déglu. bon li may sànni daal mooy maanaam daal euh, comme que université la dañoo waroon am prise en charge boo xam ne lii yëpp tey ëllëg si biir du ñu si fekk parce que ñoom tey bu ñu ko jëloon en charge lii yëpp du ñu si fekk ba pare coût bi sax war na waroon na gën a moins cher mais dañoo ne ko demal. léegi ñoom bu ñu jëloon loolu yëpp def ko li problème bi yëpp du si am ba fàtte naa sax ba bañ fa demee sax waaye sax daf ñuy waxoon sax CSA sax ñu waxoon sax ñoom ñu jëloon ko en charge sax moo ñu moo leen gënaloon te ñoom ñoo ne ko demal nga fa ji xam nga léegi nag ñoom loolu lépp nag bu ñu ko defoon nag fii yëpp ñu yegg ni tey duñ fa yegg parce que koo ne da ngay dinañ la rembourser dans maximum 15 jours mu mat presque un an et quelque xam nga. finalement dootoo xamante lan lan lay lan lay lan lay ndiru. parce que 2000 li ngay wax ni 2022 la. novembre 2022 la woon. donc ci ginaaw bu ngeen dal di multiplier sen dem yi université CSA daf leen wax ni ñun ñu jëloon ko en charge mo ñu gënal yeen ngeen jël ko en charge. premier jour bi ñu fa démé loolu la wax. te au début moom mo leen waxoon ñom ñoo leen waxoon ni wa université ngeen jël xalé bi en charge puisque dañuy gis ni dossier bi dina tarder bala ñuy génnee xaalis. waaw effectivement parce que mooy li ma l'expliqué si si si si si début bi rek sama grand frère dafa moo woo dafa ma woo ñu jox ko numéro médecin bi moom si boppam moom moo woo médecin bi wax ak médecin bi médecin bi xamal ko ne ko lii dinañ la ko dinañ la karambosé lu lu lu yàgg ma yokk si ne temps yi rek yàggul dara sax médecin bi sax pour moom sax fay na ñu bu yàgg waaw fa

mooy fi ñu war fi ñu waroon yeb mooy gis secrétaire bi bu boole ñoo CSA bi foofu rek ñu foofu rek foofu rek la am am am ak sañu pour pour pour problème est-ce que jot ngeen bind tam bataaxal ginnaaw ki nga xam moom mooy directeur bi am na kilifa maanaam ci ministère de l'enseignement supérieur wala le premier ministre hmm, wala ministère bi nga xam ne moom moo chargé ci éducation bi ngeen daal di leen euh, jox seen bataaxal. voilà effectivement bind nañ suma mag bi bind na ministère de l'enseignement supérieur. Euh, primature man sama bopp man maa dem ba jam ñaajo déposé euh, lettre bi ñu bind primature ba am naa décharge. loolu ban at la. loolu si bu motee deux mois si gannaaw ci reyam. Mm. voilà lépp ngi fii quoi do dossier yëpp a ngi yow. d'accord léegi ban message ngay lancé à des Sénégalais surtout euh, ci ndimbal bi nga xam ne nag moom nga bëggoon ci dossier boobu. bon li may lancé mooy dara rek lu dul rek ñu remboursé xaalis jàmbur parce que ñoom ñoo wax ne dem fajo ji. na dem faju ji na dem faju ji ba léegi ba léegi nii mu ngi faju man sama wax sax damay def sax ba décroiser ne jaratul sax may euh, yeneen dossiers yi nga xam par exemple ordonnance yi may continuer di jënd sax jaratul sax ma koy jënd parce que da kenn kenn day day tardé quoi tardement boobu rek day tax sax yow sa sax sawa dootoo sax sawarati xam nga ñoom élève bu leen université yi nañuy jël élèves yi en charge bu fekkee ñoom ñoo leen war a jël en charge bu ko defee problème yi yëpp dara du si am man li may wax rek mooy nañ delloo xaalisu jàmbur comme ñoom nañu koy waxee woon au début mu jeex. donc sa doom ji su ma la bu bu baax mooy ba tey mu ngi continuer def li nga xam nag moom mooy paj. waaye effectivement parce que yàggul dara sax waroon na def lundi bi passé waroon nañ ko defal euh, ndurati. scan wala. pas scan quoi ndurati ndurati dañoo waroon a xëcc liquide bi nekk si bët bi quoi. Hmm. mais finalement dañ ko wëññoo parce que docteur bi nekk fii dañ ko mujj ah, kii dañu ne nañ ko dinañ ko waar quoi fan yi fan di ñëw. boo loolu nag xamoo na da nga koy fay xamoo doo ko fay donc léegi beneen charge ñu wax sa kaw. donc gaañu gaañu boobu daf ko am ginnaaw bu mu nekkoon di football fi nga xam ne moom mooy euh, terrain bu euh, université bu Bambey. effectivement waaw décollement rétine la fa am décollement rétine waaw loolu la ci biir université. waaw. d'accord ñoo ngi lay a baax. jërëjëf. ginnaaw bu ñu dégloo ki nga xam ne nag moom mooy bàyyi papa Ibn Diop ndi euh, ndongo daara ci daara ji kawe bi nga xam ne nag moom moo nekk Bambey di université ba euh, jëm nañu jokkoo ak ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñoo nekk ci daara ji kawe jooju ndax ki nga xam ne nag moom lañ doon waxtaanal moom jot nañu xamal ni dossier bi nga xam ne nag euh, moom la bàyyi ji di wax dossier boobu noonu euh, mu ngi en cours maanaam euh, kenn jëlool dossier bi teg ko de côté ñu bañ ka fullal waaye dafa fekk ni li nga xam ne nag moom mooy koppoor ba fa nekkoon Mm, euh, koppor boobu nag de ñoom si seen euh, politique dañuy euh, daal di privilégié li nga xam ne mooy bu fekkee ne vingt étudiants ñoom ñoo am genre cas yi ñu gis ni un million deux cent mille dina dem ci vingt étudiants yi dañuy daal di jël koppor boobu noonu tas ko ci vingt étudiants yi que ñu jël koppor bi daal di ko jox benn étudiant waaye wax na ni dossier bi tam ñoom fàttewuñu ko benn yoon te ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi hein, gestu nañ ci ki nga xam ne moom mooy baay ji wala famille bi tam nañu daal di leen déglu ndax euh, koppoor bi nga xam ne nag euh, mu ngi koy laaj université ba dañu nekk di li nga xam ne nag di xool koppoor bi naka la ñuy mën a def ba daal di ko jox famille bi ndax euh, du li nga xam ne nag euh, lu yomb la ndax médecin yitam dañ leen di laaj seen avis ak fépp fi nga xam ne nag jot na fa jaar ginnaaw euh, bu ñu demee ba am loolu yëpp daal di dajale li nga xam ne moom mooy ordonnance yeeg yeeg ak lépp li nga xam ne nag dem na ci opération bi ci la ñuy mën a yëkkati koppoor gi waaye booba ba tey li nga xam ne moom mooy famille bi ndax ñoom ñu ngi wax ni deux mille vingt deux ah, la ñu daal di def li nga xam ne moom mooy opération bi ki nga xam ne moom mooy responsable bi te tour bi dañ koy nëbb pour le moment développement te di leen signaler ni bokk na ci kàngam yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk université te ñoom ñooy gérer dossier euh, jàng ndaw yi nga xam ne nag ñoom ñoo fa nekk maanaam étudiants yi xamal nañu ni dossier bi nag euh, bàyyi nañ ci xel bu baax a baax te fii ba ay fan dinañu génn wax lu leer famille bi ndax dossier bi kenn bàyyi ko euh, kenn fàttewu ko ndax euh, dossier la bi nga xam ne nag euh, laaj na koppoor gi bëri donc koppoor boobu noonu pour nga génne ko il faut nga am li nga xam ne moom mooy justificatif léegi dañuy xool ndax lépp li nga xam ne moom mooy convention maanaam am nay hôpitaux yi nga xam ne nag ñoom ak hôpitaux yooyu noonu dañoo am ay convention maanaam ñoom université bu Bambey ñoom ñoo lay daal di bindal Euh, li nga xam ne moom mooy euh, ordonnance wala benn bataaxal ne la demal fii euh, demal jëli ko fee donc loolu noonu moo nekk seen diggante ak yeneen structure yi moom dina xool ndax lépp li nga xam ne nag moom moo dox ci diggante boobu noonu parent yi respecté nañ ko pour ñu mën a jot seen xaalis ci nu mu gën a yombe di leen sant di leen gërëm bu baax a baax li lañ leen indil ci bii dossier